nekk sax presse bi bëriwu fi mais puisque bi moom nous sommes toujours à la recherche de l'information fexe nañ ba dugg fi nga xam ne foofu la Ousmane Sonko nekk bu ngeen la gisee euh, oto bi nga xam ne mooy clignoté mooy euh, oto bu grippe bi foofu la Ousmane ko nekk actuellement gis ngeen takk der yi euh, niñ ko wëree rek euh, jéem a xool yoon bi ñuy jaar pour rek euh, mën a traversé li nga xam ne moo di jeunes yi nga xam ne dañoo taxaw ci kanam rek euh, taxaw temm ne kii di Ousmane sonk du jaar feneen fu dul ci yoonu université bi loolu nag la gars yi bëgg a éviter moo tax ñu taxawal ko nii jéem a organiser wu ba fexe xam rek nan la Ousmane sonk war a jaar ba dem rek wuy ji fi nga xam ne moo di tribunal bu Dakar. yi ngeen di gis nii dafa mel ni lacrymogène yi moo ko sonn dafa mel daanu woon sax nag. voilà c'est un compliqué daal lii daal la. moo nekk tey euh, euh, ci biir Ndakaaru Ndiaye daal. fii la ki nga xam ne moo di président au PASTEF di Ousmane Sonko nekk ñi nga xam ne nag ñoo di GIGN yi euh, di groupement d'intervention de la gendarmerie. juste rek pour xool ni ñuy def ba xàllal ko yoon ngir mu mën a dem wuyu ji fi nga xam ne moo di fële ca palais de justice bu dakaar nii rek nag ñàkk déggoo dafa am ci seen biir ndax ñi nga xam ne rek ñoo di. groupement d'intervention de la gendarmerie ñu ngi euh, ñu ngi coow ci seen biir daal. ci rond point Mermoz euh, mu mel nii rek ñu ngi gën a renforcer li nga xam ne rek moo di sécurité bi gis nga takk der yi ni ñuy wàccee ci seen oto euh, mu mel nii rek dañuy waajal li nga xam ne moo di départu président Pastef bi di Ousmane Sonko. ñu ngi dégagé wu di jéem a xàll yoon bi voilà Sonko moo moo nekk nii ci otoom ñu ci topp di peut-être ay avocat am voilà comme euh, ni ma leen ko waxee woon rek ñu ngi fii ci rond point Mermoz gis ngeen nag euh, euh, ni ñuy gën renforcer li nga xam ne moo di sécurité bi. voilà yéen ngi gis noonu ki nga xam ne moo di président PASTEF di Ousmane Sonko. mu mel ni rek wàcc na ci otoom di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di ay avocat am yéen nga koy gis noonu mu sol li nga xam ne moo di yëre bu weex bi teg ci koppatem bu marron mu mel ni nag fi mu nekk nii daal moom xelam dal na ndax gisuñ benn pression ci kanamam. Sonko ngi noonu di waxtaan ak euh, gaayam yi mu mhm. ngi ci ànd ak nag assurance bu mot sëkk gisuñ ne benn tiit daal ci euh, kanamam ñoo ngi noonu di waxtaan euh, certainement ay avocat am la ñuy doon. mi ngi son nag lu weexam comme ni ma ko waxee Ousmane Sonko daal fu mel ni moom jàmm la woote blanc la fu ngeen déggee li nga xam ne moo di. ci kanamam tamit doy na waax doy na waar daal. mi ngi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di ay avocat wam ndax dafay dellu wala dafay wuy ji fële ca tribunal ci kanam tuuti dina ci xam dara ndaxte cortége bi bu déparé rek dinañu daal di topp ci ginnaawam taataana li nga xam ne dafiy xew jébbal leen ko yéen ñi nga xam ne yéenay suñuy internautes suñuy téléspectateur sax laay wax ndaxte nag yéen ñu wóolu ñu kontaan ci qualité bi ngeen bi nga xam ne rek am ngeen ko ci ñun. ba tey rek waxtaan bi jeexagul mu mel ni nag ñu ngi wax ci lu am solo ñu ngi wax ci lu am solo ñi nga xam ne ñoo di euh, groupement d'intervention de la gendarmerie nationale ñu ngi avancé ndànk-ndànk ñu ngi avancé ndànk-ndànk Gomis euh, Zoumal ma ki nga xam ne rek moo di euh, président u Pastef Ousmane Sonko mi ngi noonu kookoy président Ousmane Sonko président waa PASTEF amul benn tiit boo xam ne rek gis nañ ko ci kanamam. doon xaar nag Ousmane Sonko départ dafa mel ni rek départ na nii nii waaye nag dañ ko génnee ci oto bi nga xam ne fa la nekkoon muy otoom daal di ko dugal ci oto gendarmerie bi ngir rek mu mun a jàll te kenn du xam ne rek ah, dem na. voilà mu mel nii rek piégé nañ jeunes yi nga xam ne dañ doon taxaw di xaar oto Ousmane Sonko bi euh, daal di jàll génne nañ ko ci oto bi mu nekkoon dugal ko ci oto gendarmerie bi voilà dafa mel ni sax nag euh, tribunal ba nga xam ne fa waroon dem wuyu ji ci suba euh, du fa mujjee dem fi mu nekk nii daal direction section de recherche lañ jëm ak ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ñu euh, daal di toppaar euh, di ngeen ko euh, daal di am gis ngeen ñi nga xam ne ñoo di takk deer yi gendarmerie nationale daal di nañu dugg ci seeni oto topp oto bi nga xam ne rek fa la Ousmane Sonko nekk actuellement. téléspectateur Equivox TV fi mu nekk nii nag ñu ngi euh, Colobane ne ñoo di takk der yi ñu ngi gën a renforcer rek li nga xam ne moo di barrage yi ngir rek euh, bañ jeunes yi nga xam ne ñu ngi ñëw daal di dal seen kaw comme ni ngeen ko séenee ne jeunes yi ñoo nekk loo ñu ci kanam di ñëw bu yomb bu ngeen bëggee dégg dëgg rek du yomb vraiment fi nekk nii amatul ragal confrontation la ñuy gis fii ndax kenn mënatul a gis boo gis nag li may nooyi nii yombul de booy <laughs> voilà mbokku téléspectateur Equivox TV dox nañ ba yegg fi nga xam ne nag moo di section de recherche de la gendarmerie euh, fi nga xam ne rek fii la Ousmane Sonko nekk actuellement mu ngi ci biir mais puisque ñun amuñu accès pour dugg ci biir euh, du ñu xam li mën a xew fii nii waaye terewul rek ñi nga xam ne ñoo di takk der yi ñu ngi jàmmaarloo ak ñi nga xam ne ñoo di euh, jeunes yi nga xam ne ñoo toppoon Ousmane Sonko xam naa fi la ñuy daal di yem ak yéen tey rek ci xibaaru bëccëg bi di leen jox rendez-vous allah.